Cheikh Oumar lim na benn par benn yow itam sa jàngat ci côté boobu walla bon gouvernance capital humain aménagement développement euh, durable ak euh, économie compétitive waaw déjà balaa may ñëw ci question bi ma dégg sànq yaa ngi koy wax que am na ñoo xam ne génn nañ ne dañ leen plagier leen plagier et cetera mm-hmm. xam nga damay wax dëgg rek démb j'étais à Diamniadio j'ai vu l'exposé parce que tout le monde était satisfait par rapport à li nga xam ne won nañ ñu ko mais xam nga même quand on veut s'opposer on doit s'opposer avec la tête mais pas avec le cœur li may wax mooy que tey da ngay rendre compte que même ci seen analyse da ngay gàñ ne on dans un pays sous-développé certes même seen esprit d'analyse dafa sous-développé xam nga lu tax wax la loolu ah. obligatoirement hmm. il faut qu'il y des similitudes entre les plans entre les programme xam nga lu tax. waaw ah. parce que base ban koy liggéeyee même base bi la. mooy les problème c'est le Sénégal. parce que doo créer chiffres yi. xaaral ma wax la déedéet waxee ma foofu déglu leen baax li ma leen bëgg expliquer. il faut mu am similitude. tey bu fekkee ne man dama def benn étude. Mhm. sama base de données ak sama base bi nga xam ne moom laay liggéeyee c'est le Sénégal. quand on parle des huit c'est normal ñu niroo la ko parce que pôle bu nekk dafa am ay richesse am. xaw ma ndax comprendre dafa am ay meññeefam am ay recette am. meññeefu boppam. yoo xam ne boppam la tey ñu créer ko pôle pour pouvoir l'exploiter de manière efficiente. Hmm. mais tey kuy développer Sénégal ci es obligé pôle yooyu nga identifier ko lan fay produit richesse yan fay def nga xool nan lañ koy organiser. Hmm. il faut ñu niroo soo jëlee plan wu Senghor jël Ablaye Wade yi mu def Abdou Diouf Macky Sall ah Diomaye foo jaar am similitude. ñi nga xam ne tamit def nañ même étude yi il faut mu am yoo xam ne ñoo koy niroole parce que fa ñuy jëlee données yi fu ñuy jëlee xam-xam bi yëpp ñoo bokk fa ñuy roote donc loolu loolu loolu du débat. kon loolu waxu ko daanu ci seen. moo tax ma ne waxu ko seen xel moo màccul dañu am un esprit d'analyse ne. gis nga nit mën ngaa màgg sa bopp màgg sa eh, cerveau màgg mais sa xam-xam. ah na ngay analyser ah fa ngay orienter sa analyse bokkul moo tax. ma ne en de pareilles circonstances même si on s'oppose on doit s'opposer avec la tête mais pas avec le cœur c'est important yow tey dangay sol chemise sol pantalon suba nga sol Lacoste ah sol beneen xeetu tubéy mm-hmm. mais teewul na c'est la même personne qui change suivant ni muy solo c'est la même chose mais le fondement c'est yow parce que tey sa yére tey Yékini mënu ko sol. donc bu fekkee ne ci yow la ñuy analyser obligatoire tailleur bu mënti ñëw ak ku mënti ñëw sa ni nga mel sa taille la lay mën a tabaxale ñun ñëpp ñoo bokk base bu ñuy analyser. par rapport au Sénégal au donc sooy génn plan ci Sénégal forcément il faut mu am yu niroo parce que ñoo bokk fa ñuy roote donc c'est foo faux débat. ndax de diir que diw ak diw daf ma plagier. loolu du xam-xam quoi. du xam-xam affaire xale la. <laughs> d'accord je comprends. maintenant. Mm -hmm. ce qui est intéressant Sénégal li ñu mës a sonal yëpp du ay plan yu baax du ay plan yu xaw a méngoo. Mhm. du loolu de no ñii diriger plan yi moo tax su ma déggee ñenn ñi naan non ñii ñoo ŋànkoon si ñii ŋànkoon ñi bind PSE lañ ñoo ñëwaat bind c'est pas ça l'essentiel gis nga l'essentiel mooy plan bi ñii ko ŋànk ndax dëggantaan. ñu ngi liggéey plan bi ñu ngi teg seen patriotisme jiital réew mi loolu lañ mësul am. plan mën na baax et cetera. mais bu fekk nañ ñi ko ŋànk tey seen liggéey jiitaluñu réew mi bul la votalee budget nga liggéey def une compétition entre ñi ŋànk réew mi di liggéey kan moo dàq liggéey réew mi plan boobu du am benn njariñ te boo xoolee nag looloo ñu dal depuis 1960 ba tey plan yi dinañ baax. Mhm. mais ñii koy exécuter souvent ñooy jalgati moo tax ngay am ay fonctionnaires très rapidement milliardaires moo tax ma ne le débat day nekk débat de bas étage pourquoi parce que ñenn ñi seen réflexion bëgguñu ëpp parce que ils s'attaquent à des personnes réellement ils s'attaquent à des personne mais ils s'attaquent pas sur l'essence ou la quintessence même ci plan bi ak plan bi aussi dañ leen koy yóbboo mhm. plan jinne boo ko amoon sax tey ñii ko ŋànk teguñu ko ci yoon jiitaluñu réew mi tout le temps da ngay am quoi ki ngay am. maintenant l'avantage aujourd'hui on a et toujours dit il faut qu'aujourd'hui au Sénégal une génération se sacrifie et cette génération gëm naa ne c'est la nôtre lu plan bi rafet rafet techniquement nu ko développé ba mu leer ñii ko porté buñ ko tegul ci yoon dañuy delluwaat rek 1960. même et tey avantage bi mooy ñii fi ne. prôné jub jubal jubbanti jël réew mi dans des conditions extraordinaires parce que bu doon yeneen ñoon ñoo doon wut réew mi ci conditions yooyu gedd nañ wala bàyyi nañ. parce que fi ñu jaar quand ñu jaar dafa metti ñun sax opposition bi ñun sax yàgg nañ ñu toroxal ci loolu mais ñu xeex rek donc les options ne sompale pas les mêmes les défis ne les motivations ne sont pas donc ñii tey. am na nañu yàqin ne tey réew mi wax na ko et le président am na ci discours am ci yu mujj yi wax na ko ku nekk looy def na ko xam on doit être exemplaire ci nit ñuy doxale loolu mooy keno bi plan lu mu rafet rafet lu mu baax baax baax te ñii ko porté jiitaluñu réew mi liggéey réew mi bu leen votalee ay budget ñu jël ko. def ko fan ko war a def. plan boobu day sooxe loolu moo dal malheureusement ñi fi nekk. moo moo tax premier pilier bi am solo. donc surtout sur la question de la bonne gouvernance mooy fondement bi mooy fondement bi quoi c'est essentiel. mooy fondement bi waaw. Ah. Hmm. parce que loolu. mais mooy tax nga am justice bu bu jaar yoon. mooy tax nga am institution yoo xam ne dañuy def seen liggéey. Cheikh Omar. Hmm. lan mooy euh, programme élargi de vaccination. lan moo tax boo juddee ñu dóor la yenn vaccin yi pour yenn feebar yi du la gàllankoor ba nga nekkee xale. Mm-hmm. mais tey ñu bëgg ko ñu bañ ko tey mais bon gouvernance mooy. mooy mooy mooy mooy suñu góomu robaale mooy PEV. bonne gouvernance tey buñ ko instauré ci dëkk bi et naa ko wax dans pour nga manager que il faut deux choses il faut la carotte et le bâton. parce que jikko yàqu valeur yi yàqu la. tey boo tegee la carotte et le te ñii moom la ñu teg. tey képp ku nu dénk tey di nga liggéey réew mi moo tax fondement bi ngay wax mooy bébé bi rek. Mhm. li tax ñu dóor ko tey suivant des périodes ay vaccin c'est pour que yenn feebar yi bañ ko def et feebar yooyu du dara lu ñi nga xam ne tey dañuy transcender yàq suñuy valeur ba nga xam ne tey bul la falee rek ci réew mi lii fi amoon mooy say mbokk sax ñoo lay tànn béeral na la tibbal gaaw sa yaayee ko liggéey sa yaayee ko liggéey nga nekk nag di dompat askan wi en un temps nga métamorphosé wu financièrement avec une insolence incompréhensible loolu nag boo ko xoolee mooy feebar yu mel ni variole mooy feebar yu mel ni yi ngi tax da ngay lafeñ oto ñu dóor la vaccin yooyu tey vaccin yooyu tey la ñu indiwaat tey si suñu gouvernance pour que fondement bi ñuy teg pour que sénégalais bu ne bu la dénkee tey nga doxal pour l'intérêt suprême de la nation c'est la même chose la bonne gouvernance mooy fondement bi nga xam ne tey buñ ko réussir automatiquement dañuy dem et pour réussir que nag dafa laaj le don de soi dafa laaj sacrifice dafa laat tey jii. ak jiital Sénégal ak patriotisme. donc c'est normal que bon gouvernance tey muy loo xam ne dafa war a nekk une réalité ci Sénégal pour ñu mën a dem leneen lu ñu ci teg bénéfice la. bénéfice la parce que yeneen yi en réalité. ay interconnexion la. quand on parle de bonne gouvernance mm-hmm. pàcc boo ci jël dafa am fu muy fël la. Mm-hmm. dafay fële ci aménagement ak développement durable. day laal lépp. dafay fë fël ci capital humain bi parce que ki nu war a jox ki nu jox wàllu njàng mi tey dina ko ñoŋal par rapport ak budget yi nga dox ba nga xam ne à une certaine période capital bi ñuy am day nekk capital humain de qualité. donc loolu mooy cœur bi quoi. mooy keno bi la bonne gouvernance moo tax mooy fondement bi tey ñu doog a tabax tabax bi ñu yanu ko. parce lay fël fépp dafay fël tey. économie boo xam ne tey jii dafay compétitive une économie attractive. Hmm. et yàgg naa ko wax tey bu ñu bëggee suñu ndaw li toog ci réew mi. Hmm. tey bu ñu bëggee tey jii ku nekk di gis sa bopp il faut que tey suñu pôle territoire mu nekk lu attractif. cest di que dëkkuwaay fa ñu dëkk nga xam ne am nañu lépp il faut mu attractif loolu pour mu attractif c'est avoir une économie compétitive je crois que tey li ma ci gën a neex rek dem ba dem naa ba benn moment bi ñuy teg film bi. ma gis xale yi di daw sama yaram dafa daw parce que dama dama xalaat sama sama caat ah, pour l'instant ki ma bàyyi kër ga ay magam tey ma xalaat ñoon laa gis nañuy dawee tey et cetera et cetera loolu laa gis mooy li olof Njaay naan bu bu ñëwee di xàll mbabal tubay doom jaar mais jeex na jeex na donc seen doom yi la ñuy xool wax ji tey Sénégal du wax pour wax wax naa ko de képp koo xam ne tey jii am nga xam-xam xam-xam nag jafe na ci réew mi ñi ñuy gën a déglu tey ñu ci bari amuñu xam-xam xam-xam la ñu am képp koo xam ne tamit am nga dayo bi am nga manin bi soo gaawantuwul jàppale lii fi ne ñu dem suñu yoon gëm naa ne di nga ko regretter parce que sénégalais yi nag dañu dogu pour soppi seen réew parce que on est immensément riche et malheureusement extrêmement pauvre à cause de gouvernants qui n'ont jamais été patriotiques qui n'ont jamais mis en avant l'intérêt du pays te loolu bu ñu ko defoon tey dépassé nañ niveau bi ñu toll. donc espérant que ñu gis ci image yi xale yi di daw ci àll mais mais man benn xale bi tey laa doo xam ne sama doom la. parce que papaam ñëw na tey. seet si ma ku jigéen ki wala ku góor gi. papa ku jigéen ki parce que papaam Mouhamed Niang on a grandi ensemble ñoo fowandoo. Hmm. et puis euh, papaam c'est c'est c'est un ami avec qui mais tey moom dafa am fierté parce hmm. euh, loolu mooy ñu ngi xalaat ñiy ñëw ëllëg mais xam nga tey ci géey li mu wax mu ñu toogee rek ci ñaari pilier parce que ñoom ci seen document buñ lay wax wàllu bonne gouvernance ñu ngi lay wax par exemple 46 pour cent dossiers yi dekk ci justice c'est en latence perception bu sénégalais am ci suñu wàllu justice da ci am solo suñ lay wax bonne gouvernance mooy politique publique yi ndax egg na fi mu war a egg